ci seen beneen acte du jour bàkk ba jëm na nuyu nañ leen comme nañ leen daan nuyoo amee internet de 24 actu Covid 19 di jàngoro ji lëmbee àddina wërngal këpp démb fii ci réewum Sénégal jot naa enregistré lu toll ci fukk ak juróom ci ay cas yu décédé ki mujjee décédé nag mi ngi nekk jigéen am lu toll ci fanweeri at ak juróom-ñaar daal dëkk fële ca Fass ki xam la yooyu les résultats rek di waa ministère de la santé et de laction action sociale tey weeru mai ci atum 2020 bi gis nañ ne communiqué bi la mu daal di ci xayma mu ngi toll ci juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñett ci ay test yu ñu amal ci biir test yooyu lee juróom ñett fukk ak ñett ñoo ci daal di ñëw positif juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci ay kaa contact moom la ñu daal di am fukk ak ñeent di ay kaa communautaire mooy cas yooyu nga xamante ne nii moo jaaxal médecin yi ndaxte nee nañ cas yooyu lee ñi ko am xamuñu benn yoon ki leen ko wàll ci cas communautaire yooyu rek fi mu feeñ ci gox yi jàpp nañ ci benn fële ca Fass Parcelles Assainies am lu toll ci juróomi cas Mbao am ñaar Médina am ñaar Touba am lu toll si ñeenti cas kon tey li ñu jàpp rek fii ci Sénégal am nañ lu toll ci junni ak juróom benn téeméer ak fanweer ak ñeent moom la ñu daal di am positif juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak ñett ñu daal di koy am ci ñuy wér maanaam ñooñu wér nañu fukk ak juróom daal di décédé mooy ñi génn àdduna benn ñu delloo ko réewam li ñuy fàcc ci lalu hôpital yi mi ngi toll si juróom ñeenti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñuy daal di ñaax askan bi ba léegi ñu daal di moytandiku loolee nga xamante ne ni moo di cinq barrières yi ministère bi daal di digle muy ñiy raxas loxo yi ba mu set di takk li nga xamante ne ni moo di masque yi daal di éviter loolee nga xamante ne ni moo di rassemblement yi ba tey dañuy daal di desandi ci Covid 19 wax la xew démb fële ca Léona Niassène la ñu gis rek mooy xalif général ba bu Léona Niassène di wuyoo ci turu Cheikh Ahmed Tidiane Niass Oumaya daal nañ koy woo démb ca aljuma ji moom ak imam ba tudd Serigne Mouhamad Niass lañ leen woowee rek moo di jullik àjjuma googee nga xamante ne nii amaloon nañ ko démb te coronavirus bi buggul benn yoon loolee di rassemblement ba taxoon ñu daal leen di convoqué démb fële ca police bu Kaolack waaye nag imam ba ba mu génnee daal di nay wax ne ñoom tëjuñu benn yoon ci seeni jàkka dañuy daal di xaar police yi chaque jour bu ñu mënee di ñëw ñoom dañuy julli àjjuma ba démb sax vidéo ba mu doon defal lancé wul benn yoon message kii di président de la république mu mel ne rek imam moom jël na mituwaayam ngir di julli àjjuma saa su nekk ba tey dañuy dese ne ci li nga xamante ne nii euh, moo di coronavirus bi naam ne indi nañ li nga xamante ne nii moo di état d'urgence ak couvre-feu waaye teewul def katu ñaawteef ya ba tey ñu ngay wéyal di amal seen i def-def dañuy daal di dem fële nga xamante ne nii moo di Podor lañ fa daal di gis rek mooy ñeenti nit yoo xamante ne nii arrêté nañ leen fële ca biir gàdd ba la ko waral rek moo di dañoo sàcc lu toll ci fukk ak benn ci ay xar moom lañ leen daal di gisee ñoom ñeent ñooñu leen police ba nag daal di nañ leen di jàpp ngir eh, ñàkk nga xamante ne ni def nañ ko violé loolee nga xamante ni moom lañ naan couvre-feu ba tax jamono jii ña nga leen téye foofee ca Podor. ca diwaanu Malika la ñuy daal di jubali la ñu fa nemmeeku rek moo di ginnaaw bañ fa jàppee benn faux gendarme daal fa jàpp li nga xamante ni moo di faux policier ak faux douanière lañ fa gisaa rek mooy benn faux maire lañ mën a jàpp ca tur ba i lay wuyoo moom la mu doon def mooy da doon jaay yi nga xamante ne moo di parcelles ya foofee ca Malika ak ay cachet yoo xamante ne nii l'élu local lañ koy daal di tuddee maanaam moom ay njuuj njaaj rek la jàppee woon di jaay parcelles yooyu fële ca Malika jamono ji nag daal nañ koy jàpp buñ sukkandikoo ci ëttu yëgle yéenekaay bi di soleil lam xamle rek moo di arrêté nañ boobu le maire ak complice boobee di courtier ba ñu mën a jàpp ca tur ba rek mooy bee Samb fi mu nekk di ña ngi ca section des recherches de Colobane foofu la leen daal di ñoom ñoo ñeelee déféré nañ leen fële ca parquet wu bu Pikine ca Pikine la ñuy daal di dese ni wax lu ñaawteef ba nga xamante ne ni nemmeeku nañ ko fa benn fœtus euh, humain maanaam benn xale bu am lu toll ci 6 mois moom la ñu daal di gis foofee ca. benn force ña ko daal di gis rek mooy agent yooyu liggéeyee foofee ca LONASE précisément Touba Diaksaaw ki def li ni mel nag xamaguñ ko waaye jamono jii police ubbi na ab l'enquête ngir xam ku def boobu la ñombe ci ginnaaw ba nga xamante ne ni gis nañ ko ca force boobilee daal di nañu woo li nga xamante ne nii moo di sapeur pompier ñu daal di def seen liggéey avant ñu ko yóbbu fële ca le Dantec jamono ji nag police ubbi na ab enquête di laaj ngir ku def boobu la ñombe lépp loo xamante ne nii ruusaniwaat na ci ci ay information jëm ca mbir moomu moomule 24 actu dina ko toppal ba xam fan la wànnent di mujjee ki gëtëm ñu daal di koy jeexaleeg cooloolee nga xamante ne amoon na ci jamonoy couvre-feu bi muy mariage boobee nga xamante ne ni kii di Baara Gueye njiitu Clean Owel daal dina koy jiite woon ñu daal cee gis ay kàngam yoo xamante ni jàppoon nañ leen ca ñu mën caa cité ki nga xamante ne nii moo di Alassane Mbaye di griot des VIP ak Maria Mané nekk belle-mère Baara géey ak snapper du président di Niakharagne Lo ak la chanteuse Ndeye Diouf mu Serigne Fallou ak ki nga xamante ne nii moo di Adja Diallo jamono ji nag daal dinañ leen bàyyi may leen liberté provisoire waaye nag ci biir liberté boobule teewul dinañ ko procureur bi altine ji ngir xool ba xam fan la wànnent di mujjee ki gëtam ci yooyu la mbir Alassane Mbaye nag ginnaaw bi nga xamante ne jot na lii di liberté provisoire am nee na moom carte d'identité sax bu leeratee dootu demati police maanaam daal mbir mi moom ñemewu ko benn yoon ba tax moom mu ne lépp loo xamante ne nii jëmati na ne ci wàllum couvre wala di ko violer yu ni mel moom Alassane Mbaye dootu ci bokkati benn yoon waaye teewul altine ji dinañ nokk procureur bi ngir xam ba xam fan la ñuy mujjee ci mbir moomule lii rek moo fi jotoon ruuse ni ci ay information jëm ci yéen ñi daal di jox dig daje ba ëllëg ak jàmm incha allah